asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel saa yu weer wolof amee ñaar fukki fan ak juróom-ñeent fii ci jumaa ju mag ji tey jii mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weer wi dëppoo ak bisub dimanche e, ni ñu ko baaxoo defee ci ndigalul sëriñ Tuubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa waaye ci njiitul sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso ànd ak sëriñ Abdou Diop imam mi nga xam ne moo yore kàddu commission bi waaye feggoo ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitu sëriñ Afiye ak bokk yi nga xam ne ñoo ñuy jàppale waxtu wu ne e, tey jii la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru wolof ñu ñëwaat fii ginnaaw bu ñu sëlmalee timis la sëñ Abdou Diop yéene ci rajo jumaa ji wax ne sëriñ bi nee nañ séentu weer wi te ku ci xam lu wér nga ñëw yëgle ko ci biir noonu it daan ci jokkoo Mouhamadul bashir moom sëriñ Abdul Khoudous moom mi nga xam ne moo dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon eh, danañ ci jokkoo tam ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne mooy jokko ak région yi te représentant xalif sal de Mouride yi nekk fi su ko defee nag lépp loo xamante ne bi wax nañ ko fa bu ñu noppee dañuy ñëw ci buntu sow bi jàkkaarloo ak tori Alaaji kar Kébé Ndiouga yàlla na suñu borom dolli ngërëmam su ko defee luñ fi xamee rek danañ jokkoowaat ak sëriñ bi xamal ko ko su ko defee lu mu ci jox ndigal nag sëriñ Abdou Diop mu ñëw yëgle ko kon damay bàyyee kàddu gi ak Serigne Abdou Diop imam su ko defee mu leeral ñu ndigal li nga xam ne moo bàyyi koo ci Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaye tey jii ñu xam ne ñi ngi séentu weeru rajab te weeru rajab mooy bisub Cheikh Mamadou Fadal kon saa bu weer wi feeñee rek nañ jàpp ne bëccëgum ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weer wi doon guddig ñaar fukk ak juróom-ñaar mooy màggalug Cheikh Mamadou Fadal di màggalug rajab ci ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha waaye ci njiitul sëriñ Abo Baraka kon ñu déglu Serigne Abdou asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa baraka wa barakaatu. kon kon comme ni nga xamee ni ko sëñ <coughs> Fallou Gata si la waxee rek noonu la demee muy yéene bi sëñ bi moom dañu koy digal ci ñaari fan ak ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne ci weer wu ne. loolu nag mooy tey jii moo tax bañ ko yéenee nag danoo daal di génn ñun ñi nga xam ne noo nooy commission bi ci soow di di di séentu ko séentee nag yàlla dogal na ñun ñëpp gis nañ ko wala bu ñu ci ëpp gis nañ ko. bi loolu amee it sëñ bi moom ma nga poroxaan waaye dañoo daal di jokkook jokkook jokkoog moom ba bi mu joxe ndigal ne kon loolu nañ ko wéel ni xam kon ñu xam ne weer wi feeñ na kon euh, suba mooy benn fanu rajab na ko ñëpp ko ñëpp xam ni ko sëñ Fallou Galass si la waxee nag kon euh, bis bi moom xam nañ ko bisu rajab bi bisu kasu rajab màggalu sëñ màggalu sëñ Fallou xanaa léegi nu nu dolli ci tuuti rek loo xam ne weer wi bu feeñee li ci ëpp ci nit ñi am na ci ñoo xam ne dañuy dañuy woor weer wépp nga xam ne jàpp ne dañ ñu sëñ luñ sëñ sëñ te bañ la te demeewul noonu dañoo bëgg daa bari ay ngëneel ba ku am kàttan loo ci mën a woor rek baax na waaye nag bu la wóor ne sa kàttan toolul foofu nag da nga cay woor la nga man la ci des nga xam ne yàlla teguloo ko lu ñu sàkkutu yaa bala waaye du farata ju na ne Ramadan na ko ñëpp xam ndax day am na ci ñoo xam ne dañuy dem dem ba sonn ca loolu lool te duñ ko duñ ko a dog ngir loolu waaye loolu yàlla tegu ko kenn laa yukallifu llaahu illaa ma ataha yàlla moom lu mu lu mu lay lu mu lay teg loo loo attan lay doon waaye du du teg lu attanul kon loolu nu xamale waal ko tey te waaye nag weer doon weer weeruñ fonk lool lool ci waaye bu woor baax na nga xam ne it mooy weeru Seex Fadilu Mbàkke bu baax a baax nu jàpp ko ci bu baax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu kon ñu xam ne weer wi feeñ na ajjuma doon mooy doon màggalu kasu rajab bisu ajjuma mooy doon màggalu kasu rajab ñaar fukki fan yi ak juróom-benn lay doon dëppoo ak guddik ñaar fukk ak juróom-ñaar dëppoo ak le 17 février dëppoo ak le 17 février incha allahu rabbi di ajjuma mooy doon màggalu kasu rajab kon ñu ngi santaat ñëpp di gërëm ñëpp di bala àq ñëpp di balaat àq ñëpp di àndaat ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak commission bi nga xam ne ñooy séntu weer yi fii ci jumaa ji ànd ak waa euh, Lamfal télévision ak Lamfal rajo ànd ak waa Bisri TV ñu ngi leen sant leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.